ginnaaw nuyoo bi ñu nekk fii nga xam ni moo teewaawoon ci dëkk bu sell bi nga xam ni ñëw lu dul sàkku fi barke ak wiiw ci li nga xam ni mooy julli goo xam ni daanaka ci Tiwaawan gi yëpp julli nañ ko fa complicité bi nu yëm nag moo nekk ki nga xam ni moo nekk Abdou Aziz Mbaye borom min nuurihi ak ki nga xam ni mooy doomi sëriñ Abdou asis daa baax nga xam ni loole am solo bu baax a baax ngeen gis image yi mu nekk image yoo xam ni yu daw yaroon la image yoo xam ni Maodo rek la lay jox moom mi nga xam ne li ko taxoon a ñëw dëkk bu sell bi di Tivaouane mooy taw féex ak doon benn ak complicité yoo xam ni boo leen gisee rek nga gis ne xam ni gis nga ay kilifa ay kilifa yoo xam ni daanaka fi mu toll nii lépp looy gis ci ñoom mooy ñëw leen ci wàllu mbaax ñëw leen ci wàllu barke mais ñëw leen ci li nga xam ni li leen ñor mooy diine islaam dong ndax julli gi ñu ngi jullee fii ci xalpus nga xam ni daanaka loole am na solo bu baax a baax balaa nuy dem di yebbeeku fële nga xam ni moo nekk jumaay Serigne Babacar Sy di ñaari programme yoo xam ne yu am solo la moom Abdou Aziz mi nuuri yi nga xam ne moom mi tamit ca jàkkaarloo nag Alhaji Malick TV entretien exclusif loolee daanaka dinañ ko toggat ba mu ñor indi ko tegal leen ko ci télévision bi bu ko defee mu nekk loo xam ne lu ngeen war a bàyyi xel la mu nekk loo xam ni lu ngeen di dund la mu nekk bànneex boo xam ni kilifa gi wax na lu bëree bëri ci li nga xam ne mooy tarixa bi wax na lu bëree bëri ci xolam bi nga xam ne sedd na guy ak ci ni nga xam ni noonu lay jàngee ñi nga xam ni daanaka def leen bëgg te yàlla tax mu nekk ñi nga xam ne ñoo bokk ñëpp ci bii tarixa di bu mucc ayib di bu seex kon ñu ngi woon fii nga xam ni moo nekk teewaawoon ci dëkk bu sell bi lii nag benn la ci première vidéo yi nga xam ni dabbar ñi nañ leen ko waaye bu ngeen may nopp te continuer def seen i abonnement ci carton ak suñu borom yeneen vidéo ci topp yoo xam ni daanaka dana am solo bu baax a baax kër yi ak abonnement yi bu leen ko fàtte benn yoon ngeen aimé li nga xam ne mooy vidéo bi ndax loolee daanaka dana tax ñu am ak cawarte cant ak ngërëm ñel na leen ci ànd bi